ginnaaw ba mu déggee ci jumtukaayu xarale yi benn kër goo xam ne mu nga nekk ca njëleet ab village bu nekk ci département bu Bambey ne ñaari soxna ñoom ñoo fa am ay seex waaye kenn ki dafa àndul ak sagoom moom mii di jëwriñ gi yor wàllam jigéen ñi ak njaboot ji yónni na fa ay ndawam kenn ca ndaw ña di wax naka dañu jote xibaar yi ak lañ fa indi. dañu xëy tey mu gis ne am na famille bu nekk Bambey à 3 kilomètres de Bambey ñu nga xamante dañoo am ay seex. nekk ci ay difficulté mu ne lépp lu ñu jàppoon nañ ko bàyyi ñu ñëw xool famille bi naka la ñu taxawee lan mooy seen ay besoins primaires ñu fajal leen ko en naa ñuy xam ban accompagnement la ñuy am ci dimbali leen. loolu moo ñu fi indi tey ñu indi nag asaka yéeneem ndax yéeneem ëpp na lii mais comme dafa jàmp ñu ne nañu ñëw fex nañ la nañu jàppalee boroom kër gi ndëgam ay seex lañ te ñëpp xam nañ ne seex dafa metti moo tax ñu ñëw indil leen lii pour jàppale leen ko. ñoom ñi la sax nee nañu ndaw si nga xam ne àndul ak sa goon dees na ko jàppale. bu baax a baax. comme euh, comme ñu biñ ñëwee fii ñun lañu xam ne dafa am soxna soo xamante ni moo leen euh, moo jur seex yi ba pare am problème mu xel ministre bi moom amul euh, xaaj ak seen ministère bi donc ñëpp la boole njaboote rawatina ñi nga xamante ne mënuluñ seen bopp. Mm-hmm. donc dafay am prise en charge bu bu différente mm-hmm. boo xamante ne dina ko am. Mm-hmm. te incha allah dinañ ko taxawu. ba mu xam ne ministère de la femme et de la famille ñu ngi ci wetam. kër ga ñu fekk fa. maam bu góor bu xale yi waaye nag kenn ci woy juru xale yi ku góor di yëkkati ay kàddu cant ak ngërëm jëmale ko ci jëwrin gii di Fatou Diané. kon bu ngeen defee lii yàlla gis na ko yonent bi gis na ko ministère bi ko defit yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu dem fi Macky Sall dem yàlla na ko bur yàlla yëkkati bu mu ak fi Macky dem loolu rek laa ñaan yàlla ndax lii de lu baax la di ma seet na sama xol lool ndax mënu ma ko aw ma ko. li ma ko wax moom mooy. kontaan naa ci moom bu baax a baax a baax a baax parce que lii nit ku farlu rek moo ko mën nit ku farlu donc nit ku baax moom mën lii moom it li mu def nii yàlla mi yooyu pay rek yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla fay xolam na ko yàlla ñoom ñi li sax nekk ministère de la femme nee nañu ku am loo xam ne lëñ na la si sax njaboot mun nga leen a jot ci anam yii lee. ñun ñu def tey ba jot kaa ndax kaa bi midi lañ ko yëg jota guddi jotagul ñu def tout ba ñëw bu doon tey du Jurbel bu doon nekk beneen dëkk la it dañuy def tout ba xool suñu service déconcentré yi ne foofu naka lañ leen di yebale ñu dem xooli famille boobu dem taxawu leen ñu doog a am un accompagnement dans la continuité donc dañuy wax ñi nga xamante ne ñoo dimbalante gi ñun Sénégal loolu la ñu xamee dañuy ñaan ñëpp ñu bokk dëkk ku nekk ngay nemmeeku sa moroom loolu mooy tax soo mënalul sa moroom soo ko jàllalee ci yeneen euh, euh, pàcc yi xëy na autorité bi dina ko yëg ba mën a ñëw dimbali kooku. jëwriñ gi yor wàllam jigéen ñi ak njaboot gi di faatu Diané moom day tànkam luwul benn yoon jigéen ñi bañ ko tabbee ba tey mu ngi dox safa ak marwa ngir dab seen bànneex baam bay vingt 24.